ami chers internautes 313 digital ñu leen di nuyu bu baax a baax di am mbégte à chaque fois ci ànd bi nga xam ne euh, yéen koy ànd ak ñun ci suñu ay programme comme ni ngeen ko xame nag reportage du jour à chaque fois dañuy wàcc ci askan ñu fas yéene waxtaan ak ñoom ñu daal di ñuy jox seen avis euh, ñu gis ne que ki nga xam ne moom mooy Birame euh, Souleye Diop nekk fële ca Pastef kàddu yi nga xam ne yëkkati woon na ko jëmale ko ci ki nga xam ne moom mooy président ba mu jural ko ay sanction gisoon nañ ne aussi après par la suite moom daal dinay génn jéggalu bu baax a baax rek may ànd ak Aliou dem ci askan wi euh, waxtaan ak ñoom ñu daal di ñuy jox seen avis ça noo def sëñ waaw maa ngi sant yàlla maa ngi ci jàmm alhamdulilah. tur bi nan la. Euh, tur bi Youssou la Sané. suñu bëggoon waxtaan ci yow euh, ci kàddu yi nga xam ne Birame Souleye Diop yëkkati woon na ko di ma di ko jëmale ci ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall ci conférence de presse boo xam bi nga xam ne moom lañ doon amal. waaw yooyu moom dëgg franchement def na erreur quoi dafa dafa juum dafa juum quoi en tant que président kàddu yooyu bu tawee keneen la sax. Sourey war ko wax quoi waaw donte sax euh, Macky Sall euh, même bu doonee sa adversaire politique mais kàddu yi dafa par rapport lu mu wax. c'est surtout nag kaw di nga xamante ba ko waxee pour am preuve pour euh, étayer lu nga wax ni day jafe comprend nga donc kàddu Sourey bi lu mu wax ni erreur la quoi erreur monumentale war ko war war war ko waroon wax. voilà. ñu gis ne que ñoom erreur de communication lim leen di dal dafa bari est-ce que jotul pour ñoom ñu mën a xoolaat seen ay communication non bu naan Pastef Pastef peut-être moom Birame Souleye Diop man du ma condamné waa Pastef de waaw waaye xam nga Pastef waxuñu moom moo wax. donc tey bu ñu war a bu ñu war a bu ñu war a bu ñu war a bu fekkee ne dañu war a condamné moom Souleye mi wax dañu war a condamné quoi waruñu condamné ñëpp. voilà donc euh. dañuy gis ne que à chaque fois même bu ñuy tweeter wala ñuy euh, ñuy publier ci seen ay page ndax gis nañ ki nga xam ne moom mooy Ismaïla Madior Fall moom moo bon buy sunu Madior a yëg ma tin ma lu mu wax ma lu mu wax quoi mais moom erreur monumentale la quoi monumentale la voilà jël tamit ba nga nit erreur ba nga nit nga ne booy waa parti diw seen euh, su Madior communication da nga defee erreur non non non loolu moo du ko ko wax da nga naan diw mi moo def erreur ci communication donc man naa loolu lu mu wax ni dafa rëy erreur de la voilà waaw loolu rek waaw parce que man loolu laa ko jàppee quoi nit moom dangay ngay mais bon bu juumee te nangu ne juum na loolu man damaa jàpp ne war nañ ko mën a jéggal quoi loolu war nañ koo mën a jéggal quoi bàyyi mu jàll comme jàmm la ñuy woote actuellement nii te ñëpp moom lañu soxla waaw vraiment luy indi jàmm daal moo gën waaw. ñu gis ne que après par la suite moom euh, Birame Souleye Diop daa dinay génn jéggalu euh, mais gis nañ ne que terewul teg nañ ko loxo ba tey ji sax lañ ko war a defee rek waaw loolu nag mooy li ma waxoon sànq rek nit daal bu fekkente ne juum na te nangu ko. nangu ne na moom juum na dañ ko war a jégal waaw léegi su ko defee comme ñëpp daal fi mu nekk nii si jamonoy jàmm lañ soxla lañ toll te dëkk bi instant yi nii jàmm lañ soxla waaw vraiment ay nekk fi di wootee yeneen di jàppaat ay nit tamit jaru ko fi quoi comme lii jàll nii te ñëpp ñu ngi koy regretter vraiment suñ sañoon daal affaire yi yëpp dañ koy teg si suuf ñu jéem a jëm ci élection waa ñi ñi ci war a bokk ñëpp ñu boole leen si jàmm am ko quoi vraiment ñëpp jàmm lañ soxla. ñu gis na lee fan yée fan yële ñu génn ki nga xam ne moom mooy Cheikh Yirim Seck génnoon na fi ne même bu fekkee 90 ci population bi sax dañuy génn àdduna l' essentiel nañu fexe euh, régler dossier yi nga xam ne moom moo euh, ëmb ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko mais gis nañ ne que après dara fekk ko ci nan nga gisee acte boobu. non man moom sama gis-gis ci Cheikh Yirim mooy euh, actuellement ni mook maître El Hadj Diouf laa amatu amatuñu ñoom crédibilité. waaw parce que nit kii bu fekkente ne dañ lay séen ci benn cause nga koy défendre ñëpp ànd ak yow ah nga dem ba si biir kenn xamul yow lan moo la changé toujours benn côté ngay waxee li ngay wax ci favoriser benn côté lay jëm bon donc yow léegi amatoo looy présenter jeunesse bi waaw yow so kon léegi yow sa bopp nga fi nekkal quoi vraiment moom ay waxam pour man bi la tol waaw ok gis ne ko kenn tegu ko loxo naka nga gisee maanaam yoon bi euh, na nga xam ne noonu lay tëddee ndax gis nañ ñi faree Pastef à chaque fois euh, bu ñu yëkkatee ay cadre rek dañuy gis ne que liy ñëw liy dal seen kaw du nekk lu neex. waaw loolu mooy ñëwaat si mooy li seex Bamba Dièye waxoon parce que gis nga discours am bi mu defoon dafa am solo li mu waxoon mooy ñi nga xam ne dañoo jóg di wax li la arrangé ñooñ si jàmm la nekk mais ñi nga xam ne dañoo wax même bu fekkee erreur lañ def nangu nañ ne erreur lañ def. après day retourner nekk ay si ñoom loolu vraiment ñu ngi koy ñaawlu ko waaw. d'abord man euh, personnellement dama koy ñaawlu euh, di naqarlu euh, xam naa ay kàddu yu ñaaw ñaaw la aussi mën naa doon juumte ci moom aussi. gis ne que après par la moom biram Souleye Diop daal dina génn sax jéggalu mais malgré ça gis nañ ne que tey jii ki tey lañ ko war a defeere sax. waaw c'est vrai aussi bu waxee kaddu yu ñaaw euh, yoon teg ko loxo aussi ñun dañuy rafetlu aussi excuse bi mu def parce que loolu aussi oyof oyofte la euh, comme génnaat na daal di jéglu euh, dañuy ñaan aussi ki nga xamante ne moo di kilifa ñëpp mu baal ko te xam ne moo jiite ñëpp. bañ a xool par par parlo bañ cee eh, na ci dawal daal yërmaande xam ne ay sénégalais sénégalais la bu juum la euh, du Pastef du aussi patriote mais ku juum la te comme moo yilif ñëpp daal na baal ñëpp loolu laa ci mën na gis. gis ne que parti Pastef euh, à chaque fois rek euh, yat bi day dal ci ñoom dañuy gis ne que euh, buñ defee moyen de erreur dañ leen di teg loxo te gis nañ na fan yële ñu génn nag Cheikh Yérim Seck daal dina fi génn yëkkati ay kàddu ne même si bu fekkee ne que 90 pour cent ci population bi dañuy dee l' essentiel nañu fexe lijjante dossier Ousmane Sonko yi te gis nañ ne que ba tey yoon tegu ko loxo. waaw loolu aussi lu ñu luñ loo xam ne dañ ci def nañ ci gëstu. Euh, parce que bu fekkee ne ku bokk ci Pastef rekk wax euh, mu ay kaddu ñaaw ñu jàpp tëj wala ñu jàpp toroxal aussi dañuy dem ba nga xamante ni li ñuy daw ci réew mi da ci am parce que ñëpp la war a yemale euh, keneen bu juumee mu corriger ko waa Pastef bu juumee aussi mu war na ko mën a corriger waaye na yemale ñëpp kenn newul aussi doo def correction wala doo Euh, waaye na na boole ñëpp daal muy benn xam ne ay sénégalais euh, la ko seqal pas ay waa Pastef pas ay patriote parce que boo nee patriote ñëpp ay sénégalais Pastefien aussi ay sénégalais waaw na boole ñëpp muy benn moo jiite ñëpp xam ne euh, àdduna du neex ba nga xamante ne eh, fu sénégalais mën a nekk rek moo jiite ñëpp. gis ne que après par la suite moom génn na jéggalu nekk bëggul woon sax wax jooju mais euh, terewul teg nañ ko loxo ba niki tey jii lañ ko war a sax defeere waaw c'est vrai xam nga jéggalu tamit aussi ça dépend aussi ku nga tuumal bu la neex bu ko neexee moo jegal la bu ko naa bu ko kiyee tamit du la jegal donc euh, man je pense que tey jii euh, politique Sénégal fu mu toll nii tey ji boo war a boo war a avancer yeneen moo wala yeneen propos da nga war a xoolaat bu baax comprendre donc tey ji doo jékki-jékki rek avancer des propos bu suba nga ne maa ngi jégalu c'est c'est très facile. donc je pense que c'est une erreur monumentale et Macky Sall moom mooy président président ñëpp je pense que tey ji war na jégal waaw war na jégal ñëpp quoi war na jégal ñëpp am benn surpassement donc mun leen jégal parce que mooy moo njaboot ñëpp ñëpp njabootam la waaw nag erreur du ma du ñàkk moom erreur du ñàkk man man mii muy keneen muy yow muy keneen. duñ def ay erreur comprendre euh, ma yooyu nga mën a euh, tamit aussi euh, nga jéggalu quoi. ñu gis ne que na ñu nekk ci ay yeneen parti ñu ci ëpp yoo xam ne dañuy yëkkati ay kàddu mais après dara du leen ci fekk ndax gis nañu kaaw ki nga xam ne moom mooy Cheikh Yérim Seck. Mhm. kàddu yi nga xam ne yëkkati woon na ko fi ne même bu fekkee quatre-vingt-dix pour cent ci population bi dañuy dañuy dee sax l' essentiel nañu fexe régler dossier Ousmane Sonko te gis nañ ne que dara fekku leen ci. non soo xam nga ñoom Cheikh Yérim Seck moi je pense que les les gens qui se nourrissent derrière bon euh, bon bus naa sax wax terme bi sax mais je pense que c'est des gens dinaa ko wax si dëgg sax ce sont les gens qui se nourrissent ce sont des vampires quoi. genre bu sa mën a vampire nga baam ak terme bi donc ce sont euh, dañuy wax lu nga xam ne lu neex nguur gi pour ñu mën a ci am avantage yooyu gis nga donc wax jooju mu wax tamit dafa rëy dafa rëy te bu fekkante ne on dans un pays euh, de droit te jii yoon war na ko woo. moo teg ko laaj ko ba fa la fa la teg ci lu mu wax ni du yoon lu mu wax ni du yoon waaw war ko wax tam erreur de communication war ko wax voilà donc euh, dans les normes war nañ ko woo voilà. naka nga gisee justice bi li nga xam ne noonu lay doxalee ci di woo ñi ñii du leen woo. xam nga loolu erreur la quoi tamit erreur la xam nga tey boo waxee lu nga xam ne lu baax nguur gi ñu wàcc la boo waxee lu safaan nga. ñi woo la loolu ñu woo la loolu erreur la tamit erreur la te tey jii tey nguur gi tey bëgg say sénégalais dañu bëri ñu naan waaye justice amu fii justice nag non justice am na fii sax justice am na fi mais li les faits moo tax ñu bëri di dingat justice tey di nga gis nit ki ne amu fi parce que euh, justice day day doxal nga xam ne kumba am ndey kumba amul ndey tey dinañu woo kii dina wax ni ñu woo ko kii wax am te di les euh, euh, propos nga xamante ne ñu doxal ci gouvernement bi ñu ñu woo ko kii wax nga ne propos yu baax ci gouvernement bi rek ñu gars yi ko quoi mel ni waxul dara comprendre nga donc moo par moo tax lu bëri di dingati nguur gi mais dans les normes nguur tamit bu dee dafa war tëdd jaaxaanaay ku ci def naka su dul noonu nguur gi woo laaj la foo li nga wax nii foo ko teg boo la teg daan mu teg la daal bu fekkee da baal mu baal la voilà. waa kàddu yi déglu naa ko mais tamit bon nekk na ay kàddu yoo xam ne peut-être moom bu mu ko waxee pare regretté na ko après ba jéggalu pour man waroon nañ ko mën a jéggal ko vraiment vraiment parce que tamit def na erreur taxaw na publiquement jéggalu waroon nañ ko. kàddu yi nan nga koo gisee d'abord yi nga xam ne yëkkati na ko di ko jëmale ci président. non dafa juum rek dafa juum. te juum moom amul ku mënul dal quoi comme juum na jégalu na tamit waroon nañ ko mën a jégal vraiment loolu moom ay détails la quoi comme jégalu na waroon nañ ko mën a jégal daal waaw jërëjëf ñuy sori si kàddu yooyu noonu. gis nañ ne que jégalu na mais teg nañ ko loxo ba nikki tey sax ci lañ ko war a defeere pour man loolu ma mënoon a ñàkk quoi vraiment parce que yàlla boo ko boo ko tooñee sax baalu ko mu baal la waxuma laa nag nit kon war nañ ko mën a baal teg teg ko loxo ma mënoon a ñàkk parce que lii tamit mën nañ di waat violence tamit si réew mi vraiment gis ne fan yële ñu génn Cheikh Yérim Seck yëkkati woon na ay kàddu ne que même bu fekkee 90 pour cent ci population bi sax dañuy génn àdduna l'essentiel lañ ko fexe rek euh, régler li nga xam ne moom mooy euh, dosi euh, Ousmane Sonko gis nañ ne que moom kenn tegu ko loxo nan nga gisee à chaque fois ñi nga xam ne ñoom ñoo faree Pastef bu ñu juumee na nga xam ne noonu lañ leen di tegee loxo. waa Cheikh Yérim déglu naa kàddoom yooyu. mais xëy na ñoom tamit dafa am peut ñoo xam ne dañ leen singli ñoo ñoo xam ne bu ñu waxee ñu jàpp leen ak ñoo xam ne peut-être amulul leen benn njëriñ man dama jàpp ne Cheikh Yérim ñoom dañ ko soxlawul moo tax mais ni ma moom moo gën a garaaw que ne li koy wax vraiment. gis-gis am ci yoon bi na xam ne noonu lay doxee jamono jii ci réew mi. ah justice de ñoom xam nga am gën a xam comme ñoom la fi yàlla teg tamit ñoom moom leen neex la ñu yaatee mais nag ñun mënuñ si dara vraiment xanaa di leen ñaan rek ñu dawal yërmande waaw dawal yërmande comme dëkku jàmm lañ nekk daal ñu def yërmande ñu jàpp te defuñu dara ñu jëm leen bàyyi ñu woote jàmm yàlla defal ñu jàmm ñu dem si élection jàmm que le meilleur gagne incha allah. voilà mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax euh, ci ànd bi nga xam ne à chaque fois yéen a ngi koy ànd ak ñun ci suñu ay programme di jaajëfal Aliou euh, sama maan di leen jox rek euh, dig daje ci seen beneen reportage waaye laata loolu dee leen w di abonné ci 313 digital.